kuréelu yonent yi war na am ku leen jiite yàlla tànn sayidina muhammad waaye kuréelu wali yi aussi war na am ku leen jiite yàlla ni nañu tànn mawlaayu cheikh ahmed tijani chérif délégation bi dem ci moom xam nga ñu constitué woon délégation bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent yàlla ibrahim alayhi salaam yenent yàlla muusa alayhi salaam yàlla isa ibnu maryam yenent yàlla Nuux ñi leen doon àndal ci formalité ndax formalité la ndax ulul azmi mina rusul fu ñu dem ndaw amatu mais ñi àndagoon ñoom ci formalité bi di leen jàppale ci yoon bi mooy sayidina Ababacar Saddiq dina Umar sayidina Ousmane sayidina Ali ñu def seen délégation boo xam ni famille shahada bu yonent bi feeñ nañ ci diggante ñeent ñi nga xam ni ñoom la ñu tuddee xulafaawul arbaa waaye ulul azmi mina rusul it feeñ na ñu ni nañu dem seeti Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ci ndigalal yàlla proposé ko mu doon xaatim bi nga xam ni kuy wëliyu rek bu Cheikh téye loolu jël na ñaari ndëggu tànkam teg ñu tàggoo bay génn sayyidatuna Maryam di yaayu Isa ibnu Maryam wax ni fu ngeen bàyyi jigéen woo sayyidatuna Khadija woo sayyidatuna Aïcha woo sayyidatuna Fatima ñu ànd mu ni yonent bi faw mu am jigéen ñu ko bi faw mu am jigéen ñu ko gunge te boobu du léegi boobu yonent bi dundagul bay dajeek sayyidatuna Xadija boobu yonent bi ñëwagul ci shahada ba di fi am sayyidatuna Fatima boobu yonent bi ñëwagul ci shahada ba di fi am sayyidatuna Aïcha boobu Isa ibnu Maryam ganeegul àdduna ba ñu naan yaayam mooy sayyidatuna Maryam kon boobu dara amagul te àndoon nañu démb moo tax àndu tey formalité rek la waaye ku nekk rox ya nga war a àndal ci sa biir kër àndoon nga ñoom démb dee yàlla def na ci ñoom tomb tomb luñ jaar ñu seeti Cheikh Tijani Chérif di dox ñeenteelu asamaan lañ ko fekk ca zawiya lumière am ba ndax gis nga ku xamul Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif rek ay jaaxle ci ay cër boobu même ulul azmi mina rusul yëgoon nañ ni xatmiya bi ñu koy ñaani ngir mu nangu ko bu ko rejeté it nitu yàlla du ko sut ndax moom dong mooy nitu yàlla bu am siège ca ñeenteelu asmaan te kenn mënul dugg xadaratul ilaahi te jaaroo ñeenteelu asmaan kon kuy jaar dina ko romb te ci biir buntam lay jaar bu ko tëjee doo jaar haitati bi markazil furumi wal maani def délégation bi ñëw waaye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme la ndax yonent bi dafa ñëw ba ci buntu zawiya bi mu tax wax yonent yàlla Nuux ni ko bu ñu doon wut magu shahada yaay suñuy magi shahada kon jiitu yonent yàlla Nuux xëcc Isaa ibnu Maryam xëcc loxo Moussa mu xëcc loxo Ibrahim mu nit nañ dugg yonent bee ngi ci biti taxaw de waaye jigéen ñi àndoon ak moom it ñi ngi ci biti taxaw waaye xulafaawul arbaay yi àndoon ak moom it ñi ngi ci biti taxaw ña la dugg wulul azmi mina rusul te yonent bi duggul taxaw ni dugg leen bi ñu duggee Seydina Moussa moo njëkk xool Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif dal di koy scruter xool kanamam xool kanamam xam ni kii du ku noo proposé dara mu sëg Moussa ndax Moussa ku xam yàlla la moo tax mu daan wax ak moom fii ci tuuri Siniin mu xool Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani xam ni kii du ku ñuy indil proposition lu tax nag boobu dafa am la mu gis ci moom mooy la mu gis mooy lumière bi nga xam ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ni mu toggee ci fauteuil bi ruux bi mi ngi dégager lumière bi muy limyar bi jóge ci Bahrul Kanzi nga xam ni borom du wuti leer ne leer a koy wut mu gis leer yi wër ci ñeenteelu asamaan bu ci nekk ngi dem di songu Cheikh Tijaani Chérif di sollu ci moom mu ni kon kii boo ko proposé lumière rek wala luy dellu ci cër buy dellu ci lumière su boobaa nga yàq sa kàddu mu noppi Isa ibnu Maryam moo wax ak Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani Chérif yeneen ti yàlla Isa ni ko ci ndigalal borom bi dañu bëggoon nga nekk xatmiya bi Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani Chérif ni déedéet mënuma nekk xat xatmiya te gisuma ay conditions yu teg isaani ka yan condition Cheikh Tijani ni yenent yàlla Isa alayhi salaam du xam nga benn martaba boo xam ni dafa ànd ak sanction Isa ni ko waaw Cheikh ni ko kon baax na dinañ déggante ndax martaba axtaab bu fekkente ni na mu war a doxale doxewu ko dafa ànd ak sanction te mooy la ñoo tuddee almax Cheikh ni ko nag man duma jël xat mi ba noppi ci wet gi nu ni sanction wa ngi nii te mën na la dal muy almaar Isa ibnu Mariam xam ni pare na ci jotaay bi mu noppee nag fekk yonent bi ngi ci biti di déglu waxtaan bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci wax Ababacar na dugg mu dugg mu ni Ousmane mu ni Aliyu mu ni Umar ni dugg jigéen ñi topp saydatuna Maryam saydatuna Khadija saydatuna Fatima saydatuna Aïcha mu nekk nag délégation yonent bi nag naka ñu dugg si Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif gis leen wàcc fauteuil ba mu toggoon toog ci suuf te ñee bi ñuy wax ak moom yëpp mi ngi togg ak mantoom bu rouge ci fauteuil waaw waaye yonent bi dugg si mu wàcc toog ci suuf yonent bi xam ni kon du ñàkk ñu yaakaar ni nangu dana am yonent bi ni ko lii Isa ibnu Maryam wax te muy ndigal bu jóge ci borom bi ñu bëggoon nga nekk xatmiya bi moom lay yeesalaat cheikh ni ko nu ñuy defar sanction bi ñu tuddee marque te mu nekk ci wet yonent bi ni ko ni ñuy def ak yi nga xam ni ñoom nga war a am te ñu bokk ci ahsab yi kon sanction bi dañu ndax xamuloo ni ci sanction boobu di al maxt boo amee taalibe bu tolloo xutbu zaman sanction ba dootu la jàpp te yonent bi wax na Cheikh Tijani Jël ni que nu ñuy def yi nga war a am te ñu bokk ci ahsab yi mu xam ni sanction bi dañ na Mawlaay Samadu Tijaani Sharif ni nangu na bi mu ne nangu na Sayyidatuna Maryam fett su mu ni ko à une condition mbooloo mi noppi ñu ni ko ban condition mu ni mission à xiru semaine parce que ñu ngi bi ngi toog te boo waxul rek ñu clôturer dossier bi jeex na mu ni gis naa ni cër bu nekk jox ngeen ko imaam al yonent bi ni ko dëgg la ndax sama doom la ni nag nekk sama suuf ndëggu tànk wala ma rejet la ruuxu imaamal mahdi génn ci jotaay bi ni ko may nangu nekk sa suufu ndëggu tànk ba noppi dem ci monde lu dëgg la cheikh mi nangu na nekk xat mi la moo tax yeneen ci yàlla isa alayhi mu wax benn bés ca xadaratu ilaahi bi ni mësuma gis ku dëgër fit ba mel ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif